Ahmad teeru xool fa Aboubacar ak Jotal ak Omar gis minbar ba gis ilimaan ji muy jiite gis fa mbooloo mu gudd lool sappe ñëpp ne rog comme ni ngeen koy gisee ci télévision bi ñëpp di julli rukoodoo si géndoo wax leen ma xol bi la muy yëg ca foofee ca Makkaat Madina ak la muy yëg ca tàng ga ndax ñoo bokk ndax amul ak tappiku léegi ca Makkaat Madina day ak tapp yàlla li nga yëg ci sa xol day leeru gëm yàlla u yokk léegi ca tàng ga ak pari day ak mooy yàlla la nga yëg ci sa xol day gëm yàlla bu wàññi loolu lépp kon pour firndeel leen nii tapp yàlla day yokk ak gëm yàlla jàdd ndigalal yàlla ak mooy ko mbaa gis suñ koy defee day néewal doole ak gëm yàlla bu ko defee moo tax ba mag ñu baax ñi daan nañu wax man min fiqhi al abdi an yataahada imaanahu wa ma yanqusu minhu wa min fiqhi al abdi an yaclama ayazdaadu imaanuhu aw yanqus wa min fiqhi rajuli an yaclama nazagaati shaytaani annaa tatii mag ñi nee nañu jaam bu ne bokk na ci ak xam fiqam ak ku xam diineem muy toppatoo leeru gëm yàllaam muy toppatoo xaalu gëm yàllaam ba xam ndax mi ngi yokk am mi ngi wàññi mbokki jullit yi dama leen a bëgg a laajub laaj ndax da ngeen def léeg-léeg ngeen toog ci seen lal maa wéet ci seen barab seet ba xam seenu gëm yàlla yokku na tey jii am wàññiku na ndax am ngeen aada jooju ah mat naa am ku ko amoon na ko fonk ku ko amul woon na ko wut da nga toog ak sa bopp yow ak yàlla nga seet ba xam ndax sa gëm yàlla gi mi ngi yokku ak mi ngi wàññi mu ngo bu ko defee mu ne min fiqhi rajuli bokk na ci fiqhi ak jullit mu fexe ba xam yoon yi ko seytaane di jaar bu ko defee yoon yooyee nga jëm leen a sakk mu ngo ba tey bokk na ci li nga xam ne ak jullit war na koo xam moo di ne ak gëm yàlla dina manqué waaye bu manqué ba àgg ci yow muy bàyyi waajib ak di def lu xaraam loolu futuur la bu dangereux maanaam doxul iman feebar la waaye bi muy doon feebar mooy bi nga xamee ne bii da ngaa tayee ci jaaw yàlla ba mbir mi àgg ci ngay bàyyi lu war wala ngay def lu xaraam su boobaa daal ne doon feebar bu dangereux boo xam ne bii mu nga wat mat naa daal di faj loolu moo dëppoog la yonent bi waxoon ci xadis ba ñu jëkkoon a wax ci njàlbéen ga li kulli amalin shiro jëf ju ne am na jamonoy cawarte te cawarte bu ne du ñàkk bis mu tayeel waaye nag bu fekkee tayeel ga teew laa jëm ci sama sunna kon su boobaa alhamdulilah baax na mucc ga taxe ga su fekkee tayeel ga danaa taxe jàdd sama sunna kon alku nga xadis boobu ahmad moo ko solo ñëw na ci saxiixu tarhib wa tarhib kon daf nuy woon ne bu fekkee ne bii jullit bi ak tayalam ci jaamu yàlla mën na koo tax a bàyyi julli farat ak tayalam ci jaamu yàlla ànd naag moom muy def lu xaraam su boobaa feebara nga bon boo xam ne mooy dooful imaan mat naa faj te mooy def luy yokk ngëm yàlla ji ba ngëm yàlla ji àgg fa mu war a àgg ba feebar ba bi wér tëlëg bu ko defee nag bu ndee seet médicament yi nga xam ne mooy faj feebaru dooful imaan bi ci njëkk mooy tadabburul quraanil azim ci seet boppam ba xam ne feebaru gëm yàlla bu feebal bu manqué dal na ko mu bëgg a faju na déglu li mu war a jëkk def mooy ne tàmbalee ci di jàng alquran tey settantal laaya yi ba xam lu ci yàlla wax tadabburul quran mu nga tadabburul quran alquran yàlla moo ko wàcce di ci leeral lépp mu ñëw di ak leer mu ciy gindi ku ko neex yal na nu yàlla boole ca ña muy gindi ci alquran yàlla nee na wa nunazzilu min alqurani maa huwa shifaun wa rahmatun lilmuminin nun yàlla daanu wàcce ci alquran loo xam ne day doon saafara doon yërmande ñeel jullit bu ko defee kon ki bëgg a saafarawu ci alquran ndeem li muy saafara feebaru dooful iman la nde alquran yi mu mën a saafara daa bari waaye ginnaaw ñun ci feebaru dooful iman la nu ne dañuy xam ne ne day faj dooful iman waaye niñ ko ciy fajoo mooy nga di ko jàng moom alquran te di ko settantal di seet li mu firi di seet li mu firi te boo dee jàng alquran nga sàmmoon teeg aada bi jàng alquran teeg diini jàng alquran su ko defee nga boole ca taatan taatan nafaxaat yi jóge ci borom bi subhanahu wa taala leer yi jóge ci borom bi subhanahu wa taala te nga teewlu yàlla booy jàng alquran nga teewlu yàlla te nga xam ne yàlla fonk na alquran ak njàngum alquran fonkal bu toll ne alquran boo ko dee jàng malaaka yi dañuy ñëw di la déglu boo dee jàng alquran di ko settantal di ca xalaat di sàmmoonte teggi ni jàng alquran sa leeru gëm yàlla dana yokk ndànk-ndànk dana yokk ndànk-ndànk sa dooful imaan sa feebaru gëm yàlla feebar gi dina tàmbali di faju ndànk-ndànk ba pare muy wér yàlla jàll dimbali aadaa bi jàng alquran nag moom li ci njëkk rek mooy booy jàng am na alquran foo ko jàngee baax foo ko jàngee baax waaye nag li gën mooy jullit bi na saxoo njàngum alquran na saxoo njàngum alquran ca këram maa ca liggéeyukaay kenn ku ne ci nun na am waqaf boo xam ne bis bu ne mu jàng te la gën mooy mu wutal ko place ak jamono ndax loolu moo koy dimbali ci mu di ko saxoo kër ga wut fa barab boo xam ne fa ngay jàng waqaf bis bi wut ci waxtu woo xam ne ci ngay jàng waqaf bu ñëwee nga toog soo yorutum njàpp du wàññi dara waaye boo yoram njàpp moo gën soo jubluwul xibla baax na waaye jublu xibla nag moo gën ci ruubi ak ci xol bi bu fekkee da ngeen di mbooloo ngeen def xalqa ngeen def sart ba tey baax na xelako zikr ñëw ci sunna moo tax bu ko defee boo dee jàng fekk yaa ngeen yor njàpp yaa ngi jublu penku nga teewlu yàlla bu baax nga jàpp ne yàllaay wax ak yow nga jàpp ne yàlla mooy wax ak yow li ngay jàng bu ko gaawantoo na nga ko tey na nga jàng njàngum sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daawul baral alquran daf ko daan benn benn a'uudu billahi min alshaytani arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin noonu la ñuy jàngi alquran njàng mu teey mu sell mu rafet waaye bul taraj taraji bul baral loolu ëpp na jàng alquran loolu kenn du ko def alquran dañ koy tajwid bu ngeen demee ci al imaamul jazri ci téeram bu ñuy wax an nashr fi l qiraat al ashr nee na ñi jàng alquran ñett lañu ñett ki jàng alquran di am tiyaaba ki jàng alquran di am bakkaar ki jàng alquran te daa waroon a am bakkaar waaye dañ koy baal bindal ko tiyaaba ki jàng alquran di am tiyaaba mooy ka ko jàng te jànge ko na ko sayiduna muhammad doon jàng sayiduna muhammad kat des ko jàngal alquran yàlla da ko ne sa nuqri'uka daanu la jàngal alquran ji fala tansa ba doo ko fàtte jibril alayhi salaam su musan andi aaya alquran yonent bi day gaawantu ndax balaa jibril a dem mu mokkal alquran mu mokkal saar yi dem aw saar la bu dee ay aaya yonent bi da koo bëgg a gaaw mokkal balaa jibril a dem waaw ndax jibril bu ñëwee di indi alquran bi am na ay instant yoo xam ne moom la fi am su matee day dem moo xam muhammad pare na moo xam pare moom day dem muhammad nag day gaawantu pour bëgg a jaar ci saar wi pour mokkal ko balaa jibril a dem sans borom yàlla ne ko matu ko laa tuajjil bihi laa laa déedéet laa tuxarrik bihi lisaanaka li taajala bih inna alayna jamcahu wa qur'aanahu fa idaa qara'naahu fattabic qur'aanahu summa inna alayna bayaanahu ne ko matu ko laa tuxarrik bihi lisaanaka bu ba Jibril nekkatee di la yëg aw saar wala ay laaya bul gaawantu bëgg a yëngal soo làmmiñ pour bëgg a gaaw a mokkal saar yu mbaa laay yi balaa Jibril a dem matu ko li tax dala bii ngi day yàkkam ci koo mokkal balaa jibril dem matu ko inna alayna jam'ahu nun yàlla noo warlu daanu la ko jëleel alquran ci sa dënn wa qur'ana noo la warlu ne daanu la ko jàngal summa inna alayna bayaana nun yàlla noo warlu ne daanu la ko leeral ba mu leeral nañ xanaa loolu wér na gaa ñi ku am téere bu am asrar si mel ni dafa suuf amul beneen aywa sayyidna Muhammad kon yàllaa ko jàngalal boppam alquran moo ko leeralal boppam alquran moo ko ko firil moo tax li ñuy wax ak li ñuy jëf dañ koo war a jëlee ci sayiduna muhammad bu dul loolu laajee la amul njëkk yonent bi moo jëlee ca yàlla ku dul yonent bi jëlee ci yonent bi mbaa nga jëlee ci ku jëlee ci yonent bi ku jëlee feneen la nga andi baax waaw moo tax alquran bi ki koy jàng da koo war a jàngee na ko yonent ba daa jàng benn bis Amar ibn Xattaab daal jot jot da mu déggee Hisaam mu jàng ba àgg ci baat mu jàng baat bi nu bokkut ak na mu xam dafa koñ na ko yow da ngay yàq alxuraan yàlla ji mu ne ko man yàq ma ko mu ne ko da nga koy yàq fekk lu tax nga di ko yàq mu ne ko man yonent bi doo ko jàngale nii mu ne ko déedéet man yonent bi yow jàngale jàngale moo loolu nan dem ci yonent mu ne ko nan dem na ngeen def rek tax na mu bàyyi poñe bi taxul mu bàyyi ko da koo téye poñe bi ba ñu àgg ci yoon bi yonent bi ne ma ma mbaa jàmm ne lii daal mu ne ko xanaa xisaan bi ñëw di yàq alxuraan bi wax ko mu ne yàq ko jàngal yonent bi ne waaw bàyyi bàyyi poñe bi nga baat bi nga poñe ba ba mën a wax mu door a bàyyi baat bi ab bi noonu lay mel noonu lay dogoo ci yàlla noonu lay dogoo ci dëgg noonu lay def ci fépp fu mu gis lu yàlla bañ mu teefa mu ah mu mu mu jëngu rek mu jëngu teefa ndax yàlla bëgg na ko bu ko defee mu dund àddina ba faaw yonent bi ne ko bàyyi ko ba mu wax yonent bi ba mu waxee loolu Seydina Omar door a bàyyi Hicham daal di jàng yonent bi ne ko wax nga dëgg de nii la ñu ko wàccee Seydina Omar yow jàngal ma dégg Amar daal di jàng nu bokkut ak ne Hicham jàngee te mooy ni ñu ko jàngaloon yonent bi ne ko wax nga dëgg de nii lañ ko wàccee hakada unzil ah yonent bi ca la waxee ne alquran dañ ko wàccee ci juróom-ñaari ahruf maanaam alquran am na ay jàngin am na riwaayatu warsh am na riwaayatu xafs am na riwaayatu ibnu kathir am na ay riwaayaat yoo xam ne mat na fukki riwaaya ak nangam boo demee ci an nashr fil qiraat al ashr qiraaya rek am na fukki qiraa qiraa bu ne moo ndil ko ñaar ba ñetti riwaaya bu ko defee ki jàng faw mu jaar ci benn ci ci riwaaya yooyu benn boo jaar nag baax na ndax noonu la jógee ci yoon bi yoon bi moo jàngale riwaaya yi yépp boo ci jàng baax na xam ngeen ni pour joxe ci misaal rek ci ci ci ci ci ci alquran xam nga ne fii ci fatiha yéen ñuy jàng malik yawmi din wala maliki ah maliki rek maliki la xafs jàng waaye maliki warsh moo ko jàng boo demee ci wal fajri wala taxudduuna ala taami miskin ngeen di jàng wala wala taxaadduuna wala taxaadduuna xafs ba jàng warsh wala taxudduuna lay jàng anamta alayhim غير المغضوب عليهم ngeen di jàng wala alayhum alayhim alayhimu ngeen di jàng wala alayhim fukki riwaaya wala mu ngoog fukki qiraa fukki qiraa qiraa bu ne am ñaari riwaaya ba ñett waaye nag faw nga jaar ci benn ci yooyu ki ñëw nag di wax wala laa lii na dongay ni xumus wala laa lii na wala daalliin mooy xarfu daad mooy araf bu njoole bi daad mooy araf bi nga xam ne ci arab rek la am daad mooy araf bi nga xam ne mi ngi dëkk ci koondeel ci koondeel lamiñ ak la mu jàkkaar lool ca bëñ ya daad moomu sunu mag ñu baax ñi yal nañ leen yàlla fayal ku fi mokkal fatiha tey ñooma ku fi am loo tiitaroo baa nga xam loo tiitaroo ñooma li ma fi wax lépp lépp lépp ci diine ñooma man jëmul Mauritanie man jëmul Caire man jëmul màkkam ci bitaa li ma xam lépp mag ñu baax ñi ñoo ma ko jàngal yal na leen yàlla fay bu fekkee ne bi dafa am ci ñoom benn benn yu daa jàng wala laa lii na te wala laa lii na moo amoon Sénégal te mënuñoo jàng wala daalliin sotar yi ak si wu fi tubaab yi xaraam yu bon yi tëj frontière yi ne kenn du dugg kenn du génn téere du dugg téere du génn waaw téere du dugg téere du génn te sam papa laaj na al journal journal kese bu ñuy wax ab taqwa ci jamonoy colon yi ba mu ñëwee bureau politique ñoo ko téye boole ci lettre ba ñu xotti ko jël journal ba woo seen papa naa ko yow yow jaaboor nga woon bay lañ la xamaloon ak jaamu yàlla dem sa jàkkal léegi-léeg da ngaa tax ma si bind teg bitim réew sax da ngaa bëgg a sopp loolu mu def ab journal doom ab journal doom xamul mu def xamul mu def sëñ Bachirou Mbacke yal na leen yàlla dolli leen ñoom ñëpp wala sëñ Modou Moustapha am na ci ko xam ne que ay téere yooyu diine ji la laaj ba mu ñëwee ba bureau politique boo téye tubaab xaraam yu bon yooyu lu nu manqué ci diine ñoo bu fekkee ne bii nag ñoom dañoo téye téere yi ne dara du dugg dara du génn ba tax nuy jàng ba tax am ci ñun du ñëpp sax te teewul teewul mag ñi liggéey li ñu liggéey mag ñi li ñu liggéey li ñu ko liggéey man la ma jaaxal mag ñi kiimaanu yàlla la ñu àndal mag ñi yàlla won nanu bu baax a baax ku féetal yàlla yàlla féetal yow xool leen circonstance yu la mi li ñu liggéey ak li ñu fi bàyyi ana kan ci nun moo am ragal yàlla ak mag ñi ana kan ci nun moo am xam-xamu mag ñi ana kan ci nun moo am sellug mag ñi xanaa yéen man de du ma man de mënu ma leen sax taalibi mënu ma leen sax taalibi waaye bu fekkee am na ci ñoom ay benn benn yu jàng wala laa leen ngir ak ñàkk xam te gisuñu ku leen jàngale wala bool lii wala yu jooje dañ ci am tuyaaba wala dañ ci am bàkkaar dañ ci am tuyaaba mooy ñetteel bi mooy ki waroon ki jàng nar na am bàkkaar ñu koy jox tuyaaba ki jàng alquran imaamul jënd nee na ñett lañu ki jàng alquran di am tuyaaba mooy ki ko jàng di ko tajwid ki ko jàng di am di am war na am bàkkaar tey am tuyaaba mooy ki nga xam ne tajwidu ko day yàq waaye nag amul fu mu ko jàngee amul ku ko jàngal gisu ko li man lépp def na ko kooku wàcc na ki koy jàng tey am bàkkaar nag mooy ki nga koy jàngee tajwidu ko jàngul tajwid te am na fu mu ko jàngee xam na ne mën na koo jàng ci jàngu sàngam ci daara sàngam mbaa ci école sàngam doon danañ ko laaju fay danañ fay di jàng jàng ko nag xanaa ne ah man saa bàyyi kenn dàq ko alxuraan ndax sama sëriñ kenn kenn rawu ko te ngeen doon jàng daal tey yem lu mu jàng rek mu fidd ci kaw alxuraan bis koy tajwid kon boog boo dee jàng alxuraan yow juut bi fexeel ba tajwid ko soo mënul tajwid dama jàngi tajwid tajwid mooy nga jàng alquran jàngir bu mel ne wa ko sayidna Muhammad daa jànge dafa am ay atte am ay règle dafa am ñuy jànge ro raaw raaw wolof ak bu alquran daa bokk rob bi dafa am raa bu ñuy tafxim am bu ñuy tarqiq waaw imaala am na ci wolof am na ci alquran waaye bokkul wattu xee xee ak e e dañ koo tarqiq ci wolof xee dañ koo tarqiq ci alquran waaye bokkuñ bu ko defee nag règle yooyu nga xam ne moo lay woon nooy jànge alquran ba mu dëppoo ak na ko Muhammad jote woon mu jóge kaw asamaan régal yooyu ensemble la régalé mu ngeen tudde tajwid faw ngeen gis ku ko mën a jàng mu jàngal yu jàng gi farata booy jàng alquran nag di ko tajwid di ko teeylu di ko jàng jàng moo xam ne day mel ni njàngum sayidna Muhammad te njàngum sayidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom xam-xam yi nee nañu xaw ngaa mën a topp ci moom di bind li muy jàng ndax jàng mu teey ba noppi li muy jàng day teewlu maanaam teewlu maanaam bu àggee ci fu yàlla teg ko mu tiit mu tiit jéggalu yàlla na yàlla baal ko bu àggee ci fu yàlla digee xéewal mu mu ne yàlla yàlla nga ma ci xéewal bi bu àggee ci laaya joo xam ne daa fees dell ak i xam-xam ak i xikam mu takraar laaya ji bu àggee laaya laaya ji lammiñ wi gën a gaaw xel mi mbaa xol bi ba tax na lammiñ wi jaar na ci aaya ji ba mu jeex waaye xol bi moom teewlu gu muy teewlu li laay ji ëmb ci ay maanaa xol bi pareegul mu dëpp jàngaat aaya ji takkaaraat ko yonent bi daana kàbbar julli di tariw saar baag ci jenn laaya baag ci jenn laaya taxaw fa dellu gannaaw tariwaat ko dellu gannaaw tariwaat ko bu tari ko ay yooni yooni yoon xam nga loolu mooy mooy mooy tadabbur bu ko defee laay yi ngay jàng nga di ko natt ci sa kaw bu fekkee yow am na benn taxawaay boo mës a taxaw wala booy bëgg a taxaw boo xam ne bii da ngay bëgg a jiital soxlas adduna mbaa soxlas jabar ak doom ba tax nga sàgg ne diine boo yemee ci aaya ji tere loolu na nga ko nat sa bopp xam ne yow mii yaa moom laa ji keroog ci bis ba ak waxtu masalan da ngaa am soxla sànn nga mbaa dëkk ba danga faa am alal joo bëgg a topp tooji waaw ah yàkkamti waxtu julli yu jot na nag nga ne ah man du ma dem jàkka yi dama jullee fi ndax ma gaaw a liibal gaaw a dem nga kàbbar di julli danga kàbbaree di julli mu jëkk nga jékki-jékki yem ci rijalu laa tulhihim wala boog laa tulhihim tijaratun wala bayun an zikrillah mooy nit ñi nga ay gaa yoo xam ne yii day yow mbutum alal jaay ak jënd bu leen soxlaal mukk walis zikrullah walis jaamu yàlla ak jaar fi yàlla bëgg fi jaar wala fi yàlla bi wax naan laa tulhikumu amwaalukum wala awlaadukum an zikrillah wa man yafal dalika fa ulaika hum alxaasiruun wax ma nag yow mi nga xam ne da nga doon bëgg a yàkkamtee dem sax nga da ngay jullee sa néeg mu mel ne da ngaa jékki-jékki dégg kuy jàng laaya jooji xam nga laaya ji li muy waxa laaya ji dana yéen jullit ñi yéen jullit ñi alal wala ay doom bu mu leen soxlaal mukk walis jaamu yàlla walis zikrullah ku def loolu yaakaar yow mi jóg bëgg di jëm ci dëkk ba sax nga yàkkamti ne doo dem jàkkale da ngay jullee sa néeg na nga gaaw a dem ngay bëgg a jóg jëf ñu dara laaya jooju wala nga kàppar xam yem ci aaya jooju di ko tari nooy def da ngay xam ne laaya ji yaa ko moom tey yaa ko tax a ñëw tey nga natt ko sa bopp xam ne yow mii yow la yàlla di soññ nga tuub booye boo àggale julli nga def ko naafi la te dem ca jàkka julli julli mbooloo mbaa bu ëllëgee itam nga bàyyi xel ba lu mel noonu bañ laa dara ci mukk bu ko defee bakkaar lépp lu yàlla santaane boo àggee ci yaa ayyuha alladina amanu yaa ayyuha alladina amanu bar na ci alquran lool mooy ee yéen jullit yi yow ab jullit nga boo jàngee alquran ba àgg ci fi yàlla ne eh yéen jullit ñi defarul defarul waajal waajum kuy bëgg a recevoir ndigal ndigal li ba woo fan li ba woo ci yàlla subhanahu wa taala ndigal loolee na nga am pas-pas yi daa bees bu ne aqimu salaata na ngeen taxawal julli bul ne doon naa julli seetal tag taxawal julli fi mu yemoon bu dee amoon nga ci quarante pour cent fexe ko yéen a yokk ba mu mat mu ngoog bu fekkee ni bi daa wax ci asaka mbaa joxe ci yoonu yàlla bu ne yaa ayuha alladina amanu ee yéen ñi gëm yàlla na nga defaru tewaaj ngir jot ndigal li jóge ci yàlla bu ndigal li ñëwee di santaane ku joxe seetal tag joxe ci yàlla bu mu yemoon nga jëm ko yokk noonu la ñuy defee tadabbur alquran laaya bi ñëw nga natt ko ci sa bopp fexe ba mu doon sa mbubb nga sol ko lu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mos naa taxaw genn guddi di jàng di qiyaamu leel di julli julli guddi di jàng di ba agsi ci aaya in tuazibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka anta al azizu al hakim loolu mooy lan mooy in tuazibhum soo leen mbugalee soo leen mbugalee fa innahum ibaduka saw jaam lañu yaa leen moom sañ nga ko wa in taxfir lahum soo leen baalee jéggal leen fa innaka anta al azizu al hakim yow yaay buur bu tedd bi yaay buur bu xerañe bi sañ nga leen a baal ah yonent bi xam ngeen ne moo yilif moo jaboote mboolem xeet wi ba mu jàngee in tuazibuhum ci weneen xeet la laa yi doon nettali waaye moom bi mu fi aktee da koo moomale xeet wi moomale ko boppam ak xeetam bi tax mu daal di taxaw ci laaya ji di ko takkaraar di ko takkaraar bu mu nee in tuadibhum boo leen mbugalee saw jaam lañu ku ngeen boo leen jéggalee nag ku ngeen foog ne moom moo ko taxoon di takkaar laaya jooju ah xeet wi xeet wi soye boo sax nga ne ak ñi nga xam ne ay def ko ci bàkkaar lañu ak ñi nga xam ne ñi te yonent bi daa amul yërmande ba am yërmande ci yéefal yonent bi ñi tuuboon sax daf doon subir ay coono ndax ñi ñi tuubul kon ñi tuubul doon ay yéefar jaamu ko ci xërëm naan sàngara yonent bi da doon toggoo ay coono ndax bëgg ñu tuub bëgg ci islam waaw gis ngeen ko rek in tuadibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka anta al azizu al hakim mu di ko takraar di ko takraar di ko takraar ba kero ba kero ci laaj la leen yoon wu àgg mu tàmbali woon rek du bët sa ma wala ba ko ba dal xale bu dem julli takraar mooy di ko baamtu di ko wax di ko wax waxee di ko baamtu di wax di wax waxee ba waxtu wi mu naroon a julli jeex mu daal di rukkoo sujjoot sermal daal di dem julli ji jàkk defe daal mu nga ba tey ibnu xabbaan solo na jële ci ata nee na maag ubaydullah ibnu umayr mas na noon seeti si suna aïcha radiallahu anha bañ demee ubaydullah ibnu umar daal di am li mu wax aïcha da ko ne xaddisiina bi ajabi cheyin raaytihi min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama فبكت وقالت قام ليلة من الليالي فقالت يا عائشة ذريني أتعبد لربي قالت قلت فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض وجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه يبكي قال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآية نانا عطاء نانا لما عندك عبيد الله بن عمير ندم سيادة ستنا عائشة radiallahu anhum jamian nee na ban demee ñu ne yaa Aïcha danoo bëgg nga nettali nu loo dégge woon mbaa nga gis ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te na doon la la gën a yéem la la gën a yéem fekk na boobu yonent bi génn àdduna bi nu waxee Aïcha ne ko nettali nu ab qissa boo dundoon ak yonent bi tamit qissa bu yéeme nee na daaw a jooy nee na daa jooy kan moo jooy sitna Aïcha radiallahu anha moo jooy ba mu jooyee nee na daa tàmbali di nettali nee na mu ne leen am na genn guddi am na genn guddi yont bi daa jóg pour fas yéene julli xiyaamul layli ba mu jógee mu ne ma Aïcha bàyyi ma ma dem jaamu ci sama borom góor bu tëddee soxnaam ci lal ba guddi yenn saa yi na ko ne pëkk pëkk ne ko jógal nu jaamu ji yàlla bu soxna si nangoo moo gën bu nanguwul tam yenn saa yi na ko ne muñu na ma dem jaamu ji yàlla mu nga bàyyi na ma dem jaamu ji yàlla la yonente bi wax sutna Aïcha mu ne ko mu ne ko ba mu demee nee na yonente bi daal di jàpp daal di jàpp daal di kàbbar di julli nee na bu tàmbalee di jàng alxuraan dafa tàmbalee di jooy di jooy mooy yéen mbokk yi bu ngeen dee jàng alxuraan da ngeen jooye am bu ngeen déggee ci télévision bi ak kaset yi imaam yi jàng alxuraan di jooy ree da leen di jàpp ko dem leen waaye musiba la rek xol bu dee rek mooy xol boo xam ne bii alxuraan mënu koo jooyloo yonent bi day moom sitna Aïcha na nag keroog daa fanaanee jooy yonent bi dafa tàmbali ci laay ji di jàng ba mu yàgg muy jooy du jooy te nee na jooy yi daan metti lool du jooy di jooy di jooy ba penk bi tooy xet ak ay rongoñ mu kon di di jooy di jooy di jooy ba fi muy suuf si fi mu tiim tooy tooy noonu la continuer di jooy di jooy di jooy ci guddi gi di jooy ba Bilaal ñëw di nodd si di ko wax waxtu wi jot Bilaal ñëw fekk ko mu fekk ko mu muy jooy rek Bilaal ne ko yaa Rasulallah yow yàlla baal na say bàkkaar yépp yàlla nee na baal na la say bàkkaar yu jëkk yi ak yu mujj yi ngay jooyee mu ne ko xanaa man su ma yàlla baalee samay bàkkaar xanaa war na maa sant ndekete yonent bi daa sant bay jooy nun nag nu am ay bàkkaar yu bari lool yoo xam ne yi bàkkaar benn bu ci ne bu beroo mën na la yóbbu safar te wallahi sunu deru yaram yi wenn ñemewu ci tàngooru naaj wi sax waxuma laa tàngooru safaraw adduna wi waxuma laa tàngooru naari jahannam te mbokki jurit yi tàngooru naari jahannam àgg na ci tàngaay foo xam ne bu ñu yëkkati woon wenn xal aw xalu safara ci naari jahannam teg ko ci biir Sénégal suufa Sénégal luñ fi jiwati du sax day yàqu Afrique noonu adduna bépp noonu laa ilaha illa allah safara bu mel noonu ñu dugal la ci bopp bi jàpp kawar bi jàpp jeg bi jàpp biir bi jàpp gannaaw bi jàpp tànk yi jàpp loxo yi jàpp mbokki jur yi ku lii nekk sa kanam te xamagoo dëng ci muccam déet boo ree war a ree ndànk soo jooyul sa war ngaa jooy lu bari Seydina Muhammad yàlla musal na ko ci loolu ndax yàlla baal na ko ay bakkaaram waaye teewul moom muy jooy ndax di sant yàlla ak itam ngir jàngal xeetam wi ne dañoo war a jaamu yàlla te jàng alquran te jooy ngir suñuy bakkaar ak suñuy tam yonent bi teg ci ne yàlla wàcc la ci man ay aaya yoo xam ne toskara ñeel ne ku ko jàng te xalaatoo ci aaya mooy inna fi xalqi samawati wal ard ci lu wér nekk na ci ni yàlla binde asamaani juróom-ñaar ak suuf si nekk na ci ni guddeeg bëccëg di wuut wuut lente ak ni ñuy wuutee am na ci ay firnde ak ay mandarga ñel waroom xel yi ñi nga xam ne dañuy tudd yàlla ci jamonoy taxaw jamonoy toog ak jamono ñu tëddee te dañuy xalaat yàlla di xalaat ni mu sàkke asamaan ak suuf ba aay da jeex yonent bi ne laay jooju wàcce nañ ko ci moom taskara ñeel ne ku ko jàng te dafoo ko tadabbur settante loolu yonent bi bari na lu mu daan jël aaya jooju guddi di ko baamtu di ko baamtuwaat di ko jàng di xalaat li ci nekk ci ay maani mu nga mbokki jiw ji su fekkee waxtu wi jot na te ah bala wax gi ñu sàkk ñeel di subaa bi ah diis kon nag subaa kon ñu bu ko defee alquran li ci nekk ci tawxid li ci nekk ci tawxid li ci nekk ci délé yu yàlla di digle ci ay xéewal yu mu nar a defal li ci nekk ci ay tëkku yu muy tëkku ñi mooy ay ndigalam li ci nekk ci ay atte yu yàlla bëgg ku ko def li ci nekk ci ay xibaar xibaar yi nit ñu njëkk ni ay nettali li ci nekk ci ay aadaab ay jëfin li ci nekk ci ay jikko ak ay jeexit yu war a bàyyi ci xolub doomu aadama loolu lépp dañ ko war a teewlu jamono yi ñu dee jàng dañ ko war di xalaat ak di ko settantal mu ngo bu ko defee bu ko defee sunu xol di dund ci loolu sunu xel di ci xalaat di ci settantal te am na ay saar yu gën a spécialisé wu ci yenn ci domaine masalan boo demee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma ngay wax naan sayyabat ni huudun wa axawaatuha lu nga qabla al machib yonent bi nee na man bi jaaw naa te sama ja waxtu bi jaaw jotagul te la ma ko teg mooy suuratu huud ak i mbokkam gaa ñi feet leen wax jooju ba xam lu mu am yonent bi nee na bi jaaw naa te sama waxtu bi jaaw jotul te li ma bi jaawloo mooy huud ak i mbokkam waaw luy loolu suratu huud ak suratu ida waqaat alwaqia ak walmursalaati urfan ak amma yatasaaluun ak ila shamsu kuwirat saar yooyu dañoo bari lu ñu nett li ci xew-xew yowm alqiyama moom mbokki jullit yi kenn ku nekk ci nun kenn ku ne ci yéen na ma wax ba yowmal qiyaamate kenn ku ne ci yéen na ma wax àllaaxira ajjana la jëm wala safara kenn ku nekk ci yéen nga imagine taxawaay bi mu nar a taxaw ci kanamu yàlla bis bu yàlla indee jaam yi ñëpp indi place yi muy peesee bàkkaar ak tuyaaba bis bu jibril ñëwee malaaka yi doon ay sàppe keroog ñu taxaw taxawaay boo xam ne ku fa jóge da nga jaar ci kaw siraat dem ajjana wala nga jaar ci kaw siraat daanu ci naari jahannam kenn ku ne na jël ba